salaam les patriotes maa ngi di nuyu fu ngeen mën a nekk sen xarit Cheikh Kebe la voix du peuple ñu ngi nuyu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di nuyu bu baax notre premier ministre Seydina Ousmane Sonko mu sell bi. Nabi Vision. dafa am ben actualité nak bo xam ne fan yi mi ngi ci dëkk bi muy le problème de Barthélémy Diaz Bu bëgg a résumer tuuti rek ci euh palmarèsu Barthélémy Diaz. ak erreur politique yi nga xam ne def na ko ci chemin politique am Barthélemy Diaz mi ngi dugg ci politique en 2004 euh, ñuy dem ba war a xëccoo ndaw li nga xam ne mooy jiite parti socialiste mu nekkoon Barthélemy Diaz ak ku ñuy wax Babacar Diop mi tey nekk maire Thiès yàlla def euh, ñoom Ousmane Tanor Dieng ñoom ñëpp favoriser Barthélemy Diaz mu jiite ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk parti socialiste ñuy dox ba 2011 ci jamonoy Ablaye Wade la mu am ay nervi yoo xam ne dañu ñëw euh, ci mairie mm, foofu fa fekk na moom newul ci mairie bi mu ngi këram mu déplacé këram ñëw ci mairie bi jël arme jàkkaarloog ñoom ba rey ci ku ñuy wax Ndiaga Diouf ginaaw bi nga xamé ne rey na njaga juuf <clears throat> jamono euh suma djoumun ki nek ministre de la justice Usman moy Ousmane Diagne mo nekkon procureur de la république jamono Ablaye Wade eh, Ousmane Diagne dari di Barthélemy Diaz ñu yobbu ko ci kasso bi ndax bakan bobu nga xamné ne rey na ko bi ko ci kasso bi après ñu dugg ci campagne 2012 ñëpp xam nañ campagne bi ni mu méttee woon loolu yëpp yàlla def. Naby Vision. ñu daal di Macky Sall mi daal di gagné réew mi 2012 gagné ko ci Ablaye Wade bi nga xamee ne Macky Sall gagné na réew mi ci Ablaye Wade fekk ci biir campagne bi partie bu ñuy wax parti socialiste te Ousmane Tanor Dieng mi jiite woon ko te yàlla def moo génn àdduna ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale Macky Sall ba mu gagné Ablaye Wade. léegi nag bi Macky Sall gagné 2012 waa parti socialiste ndagam ñu ngi ci biir euh, gouvernement bi ñu daal di joxe ndigal ñu libéré euh, Barthélemy Diaz bi nga xamee ne nag libéré nañ Barthélemy Diaz ki ñuy wax euh, procureur Ousmane Diagne opposé woon na ne du bàyyi Barthélemy Diaz malgré loolu yëpp Macky Sall fexe ba ñu bàyyi Barthélémy Dias biñ ko bàyyee nag dossier am kenn àttewu ko dañ ko bàyyi muy traîner ndax lan boobu mu ngi ci mouvance présidentielle bi moom Barthélémy Dias lijjantiwul dossier bi te dédommagé wuñ famille Ndiaga juuf àtte wuñ ko defal ko faveur daal mu ne ci lu ko neex moom Barthélémy Dias maanaam Barthélémy coowam lii ba mu ko waree régler dafa yàgg bu yàgg la ko waroon lijjanti bu mu féete boor. mais mu nekk ci pouvoir beeg Macky Sall ne ci pouvoir beeg Macky Sall ne ci pouvoir beeg Macky Sall ba diggante euh, part socialiste ak ak APR commencé am ay jafe-jafe mooy élection dafa jub si Ousmane Tanor moom nee na du dem élection. Naby Vision. booba ñoom Khalifa Sall Barthélémy Dias mi ngi ci ginnaaw Khalifa Sall xale yooyu daal di bañ ba génn parti socialiste bàyyi fa Ousmane Tanor Dieng. ginnaaw bi ñu génnee nag ci la seen jafe-jafe ak Macky Sall commencé waat Macky Sall itam téyewaat dossier bi ñu koy politiquer di ko politiquer di ko politiquer ba bi nga xamee ne euh, Barthélemy Diaz ànd na ak Ousmane Sonko ñu bokk nekk yeewi askan wi ak xalifa Sall ci lañ nekk ci lañ nekk ci lañ nekk ba mille vingt 2024 bi nga xamee ne mi ngi jub si. foofu noonu ay calcul politique am Barthélemy Dias def calcul politique xalaat ne li koy arrangé mooy élection baña a bañ a am bu ko defee moom mu continuer nekk mairie bu da mu continuer nekk yor maire bu maire bu Dakar ci ci ci lu mel noonu ci la trahison bi ñëw ñoom Khalifa Sall Barthélemy Dias mi trahir soo ko dem favoriser Macky Sall jàppale Macky Sall pour Macky Sall gën mën gën a ci réew mi té ñom li ñoon doon ak Ousmane Sonko moy ñu jëm fee jëlé Macky Sall ñu dem ba ben instant amutuñ ngëm-ngëm amutuñ vision politique ñak vision politique moy nabi Vision nga xalaat né Macky Sall dina fi togaat loolu ñak manam ñak vision politique fofu la tambalé kon vision politique Khalifa Sall amuko ay <coughs> maa bu baaxa baax vision politique. Khalifa Sall amu ko Barthélemy Dias amu ko ndax boobu ku gis ni réew mi doxee xam nga ne Macky Sall jeexal na ñu def seen complot ak Macky Sall Barthélemy Dias toog na ci plateau mu ne waaw dama Ousmane sonk dafa am lu ma ko proposé dama ne ko woon nañu bàyyi euh, Khalifa Sall nekk candidat dem ñun ñu xaar 2029 quoi waaye loolu loolu loolu loolu loolu mën nañ ko dégg loolu mën nañ ko dégg journaliste bi ko doon laaj ne ko pourquoi Ousmane Sonko di di di di di di bàyyi ma Ousmane Sonko du bàyyi ndax dañ ne il faut battre le fer quand il est chaud Barthélémy Dias ne face à l'État il y a pas de fer chaud lii la tontu en face de l'État nee na am il y a pas de fer chaud nee na amul kenn ku mën a jàkkaarloog État di am loo looy mën a yëngal kon ñoom jàppoon nañ ne kon. Macky Sall maanaam jekku na Ousmane Sonko Macky Sall ci boppam tam ne leen da ngeen di sonal seen bopp mais Ousmane Sonko mi ngeen topp du dem élection te dinaa ko tëj ñoom Bart gëm loolu dem ànd ak Macky Sall. Naby Vision. trahir Ousmane Sonko loolu lii lii yëpp fii la fekk nit ñi ba léegi dossier bii makis gisu leen ci Ousmane Sonko ba léegi de fu mu ci duggee gisu leen Diomaye Faye fu ñu ci duggee. kon dossier bi dossier bu Ablaye Wade la ak Barthélemy bi Ablaye Wade jeexale mu nekk dossier bu Macky Sall ak Barthélemy Barthélemy waroon na am fu laak fayda Barthélemy ci boppam toog na ci assemblée nationale mun a ay Aïssata Tall Sall sama kaa su ngeen ci waxut même élection député yi di ñëw du ma mën a nekk député kon Barth Barth il savait bien que moom lii ko topp nii dina ko ñàkkaloo poste député dina ko ñàkkaloo mairie bu Dakar moom xam na ko kon li muy def nii yëpp politique la ak jóg di réyu làmmiñ di wax te xam nga ne yow tôt ou fi nga jëm nii mooy mairie bi da nga koy ñàkk te mairie boobu mu nar a ñàkk moom kese la dese ci dund ci politique Barthélemy bu ñàkkee mairie bu dakaar mooy torox na mooy jeexal na ci politique gu Sénégal moom xam na ko bu baax léegi nag ba mu waree am fulla ak fayda taxaw ak maki Sall ndagam day day day trahir rek day wor avant muy dugg ci di ak Macky pour éliminer Ousmane Sonko waroon naa lijjanti bopp moom ba pare mais nag li ñuy wax rek jaam ak pexe mais yàlla ak dogalam léegi yàlla def nag Barthélémy Dias loolu yëpp échec na. Naby Vision. dem na bay wax waa diaspora bi yéen mun leen a fal kenn vous êtes minoritaire diaspora bi ak niñ mel ak seen taxawaay ci ci ci ci politique Barthélémy ne leen yéen tekkiwu leen dara ci politique Barthélémy moo ko wax. taxawaat ne élection présidentielle fii ci Sénégal kenn mënu ko gagné premier tour képp ku ne la mën na koo gagné waxul dëgg Barthélemy moo ko wax ne Ousmane Sonko dama ko proposé woon ñu jàppale xalifa après moom ma jàppale ko Ousmane Sonko lànk mu ne ko pourquoi son ko di bañ waaji ne ko ah Ousmane Sonko kat instant yi moom li mu mën a fal daa bari mu ne ko fii kenn mënu fee fal kenn léegi nag loolu moo topp Barthélemy Dias bu fi may waxee yow nii. muy victimisé wu di tudd Ousmane Sonko Ousmane Sonko yaa ngi moom yéen ñaar bokku leen te maa ngi ñaan le président Ousmane Sonko coow lii bu mu ci dugal gémmiñam président Diomaye bu mu ci dugal seen gémmiñ na justice def liggéeyam rek ndagam ñoom ñoo ko fi waxoon force restera la loi état kenn du xeex ak moom état dafa am ay secret état dafa am ay pexe état dafa am doole mi wax na ko fii beneen bi li lay woon ne mi gëmul boppam gëmul woon ne Macky dina fi jóge ni leen Macky Sall piégé nax leen mooy damay tuy Ousmane Sonko du dem élection daal di annuler élection présidentielle fii mook papam ñu nekk seen kër di fecc teg woyu Youssou wu naan ndakaaro ndakaaru bii mi ak papam toog ko di ko woy ak seen waa kër ñu naan y a pas d'élection y d'élection au Sénégal y a pas d'élection di ko fecc mook papaam loolu lan la woon dañoo naagu woon jàpp ne Macky Sall jekku na Ousmane Sonko léegi nag affaire bi échec na mais da ngay nangu ne da ngaa échec. Naby Vision. erreur politique nag politique du ko jéggale adversaire politique.